ci ndenkaani Sëriñ Tuubaa ci wattandiku tooñ moo xam ab jullit la wala ab yéefar wala ku bon la wala ku baax rek ndax lu ci nekk rek ngaañ la te ñëwoon ba agsi ci xadiis yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bi ñuy wax xadiisul muflis muy xadiis boo xam ne nii ci la bi di jàngalee lan mooy pertaange te démb jàngoon nañu yax bi yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa toogoon ak saxaaba yi ba mu laaj yàgg mu laaj leen ne leen ndax xam ngeen ak pertaange ñu ne ko ah ñun de liñ xam ci ku mooy ku amul xaalis amul matériel amul àdduna daal yonent bi na leen déedéet ku perte ci sama xeet de mooy ku dikk yowmal xiyaam andi ay julli yu bari ak woor yu bari ak i natt asaka yu bari kon kooku ab jullikat la woon boo xam daawul jëm sax ci farata yi ab woorkat la woon nit bu daan woor bis yu bare bare bare bare di joxe asaka mboolem yu baax yëpp daal mu di ko def ba yor yiwoom bu ne gàññi waaye nag Eh, daraan tooñ bu baax xasoon na ki eh, ŋàññoon na kii lekkoon na arale kii tuuroon na dereti kii dóoroon na kii maanaam daal tooñ la nekk woon ci àdduna malgré ku mënoon def lu baax la mu ne nag bu ñëwee ba yor aw yiwam ba defe na moo ci nekk gaa yi dañuy ñëw jongatu ko ndax yow yowmal xiyaam moom ñëpp dañuy bëgg luñ dolli ci seenu yiw ak ku leen wàññil seeni ñawteef moo tax alxuraan naan bis ba moo tax ku gis koo xamoon rek da daw donte sa ndey ak sa baay la wala sa mag say xarit yawma yafirru al-mar'u min axiihi wa ummihi wa abiihi wa saahibatihi wa baniihi waaw li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi kenn ku nekk boobaa sa jubbu bopp doy na la sëkk sa bopp rek ngay tal moo tax boo gisee sa baay sax bu la mënee dolli sa yiw nga jël boo ko mënee wàññi lit say ñaawteef it moo tax nag gaa yi dañuy wër ko nag daal ne ko nag ah man defoon lii ci àdduna mu ne suñu nu may def ma ne ko ah li ci saw yiw nga fay ko lu toll ni loolee bu ko defee muy fayee ay yiwam gaaya ba yiw ya jeex te yem la ne yarooloon ci ay xaq jeexut mu ne suñ borom man de yorutuma yiw yi ma fayee te gaa ñaa ngi ni taxaw ndax li ma leen yoreel matagut suñ borom ne ko wàññil leen seen i ñawtif yenul seeni i ñawtif bu ko defee muy yenu di yenu ba mu diis gan nga xam ne amatul dara ci aw yiw yëpp am far na soppali koy ñawtif bu ko defee nag ñu daal di koy màng jëme ko safara hadis bi muslim moo ko soloo bu Eh, sëriñ Tuubaa sunu yaakaar ni ko andee ci jawhar nafis dafa wax ne dëggi dëggi eh, taf dëggi dëggi taflis dal eh, maanaam muflis jooju yonent bi sallallahu alayhi di wax mooy rek nit ki andi ëllëg ay woore ki jullee ki ak aji aja ki omraak yu baax yëpp daal waaye nag daan xas ñii di tooñ ñii di ŋàññi ñi di lekk alali ñi bu ko defee nag ñu daal Euh, jël ay ay yiwam jox gaaña bu yiwee jeexee tooñee jeexut ñu jël ñaawtee fi gaaya jox ko ba noonu lañ koy mujjee màng rek jëme ko sawar yàlla na ci musal moo tax Sëriñ Tuubaa ne waxaddu taflisin la daa man na xada an yaatiya shaxsu bi amalin xada ka sawmi wa sillati wa salaati wal xajji wal umrati wa zakati lakinahu xatafa haasa wa akal wa li nafsin daa qatal wa rudda minhu kulla ma qad faala wa rudda minhu kulla ma qad amila liman bihim faala ma qad faala fa saara xaasiran faqiran baxda sa walam yubarrax suma minhum uqida ma qad janaw min azunubi ahuna ilayhi kay yasidahu fi ma jana fa saara ablahu daluxan laa lahu mislu fatilin baxda nasin ma lahu suma ila al azabi sa bila tawaani kon nag yàlla na yàlla musal ci pertaange waaye nag nañ koy di jéem sunu kemtulaayi uh, kàttan yàlla na ci yàlla defal tawféex suñu borom dafa araamal tooñ araamal ko ci ci sunu diggante te it tooñ suñu borom moom boo ko defee mën ko koo jéggulu mu daal lay jéggal ndax suñu borom foo toll rek ma ngi lay gis di dégg saa ko saa boo teewloo jéggulu te mu dëgg ci yow mu jéggal la waaye nag boo tooñee koo xam ne ni nag yomal xiyam rek ngeen di gisee faaw ngeen lijjante ko ci pénc ma bala ngeen a dem kon nag nañu wattandiku tooñ ak tooñ gum mën a doon